jëf-jëf ji ni mel nag moo di man damaa def ñaar yoon li nga xam ne moom moo di avortement loolee mooy li waral nag ma bëgg doom ba ci kanamu yàlla loolee tax na man jamono ji lee maa ngi faju ci ñi nga xam ne ay médecins traditionnels lañu ngir sama borom subhaanahu wa taala mën ma dénk doom joo xam ne moom laay yore te ne ma gisee Bébé Aïda nag dafa nekk ko rafet dafa nekk koo xam ne ku neex a yore la loolee mooy li waral morom bu ko rek daal di koy jël waaye jubluwuma ci lenn loo xam ne lu ñaaw la jubluwuma ci leneen loo xam ne lu xebet la lu ci nit ñi di xalaat loolee dong laa ci jublu woon ginnaaw ba ma korombee jëf-jëf ji ni mel loolee dong laa ci jublu bile source nag ñu ngi ko jëlee ci suñu naataangoo yi nga xam ne ñoo fare ci Seneweb ñoo génn bile source di wax ne moom S Dramé loolee la dénk ñi nga xam ne ñoo di enquêteurs police naka la def ba daal jàpp S Dramé dañoo daal yebal ay éléments yoo xam ne ñoo doon topp jëmm ji gannaaw ba ñu amee soupçon ci jëfam ci jëmm jooju le ne est-ce que moom yarul xale bi waaw wala déet waaye amuñ woon ay preuve ni noonu la ci leen jékki-jékki tëral seeni dugg fa ngir yërndu ak a xool ba ñu demee nag ba am lu ñu insister nekk ci jëf ji nga xam ne moom lañu doon jëf maanaam fexe ba jëflante ak moom ci li nga xam ne moom lay liggéeyee ne dañoo bëgg a jëflante ak moom ci loolu la ci liggéeyam boobu la ñu bari jàpp ne ab jaaykatu tissu la ci lañ ñëw ne dañoo bëgg a jënante ak moom ay tissu loolee mooy li waral ñu mën a jëflanteeg es dramé ba daal gis ne xale bi ci boppam mu ngi ci loxoy kooku ñu naan es dramé noonu la def ba daal teg loxo ci kii di es dramé génne xale bii xale yi fees dell ci buntu këru Zalméka di yuuxoo police naan ko sa liggéey rafet na ak di bravo ki nga xam ne moom moo di saltige bi ko jot a génne ñëpp nga ko doon yuuxandoo naan bébé Aïda feeñ na ñëpp ci àdduna bi fenn fu ci nekk di woote naan bébé Aïda feeñam gi dañ cee am mbégte ak contentement noonu la ko police lijjantee ñoom waa police ñu def ci liggéey bu rëy boo xam ne ñëpp seede nañu ne liggéey nañu ci muy liggéey xam ne firndeel na ni police bu Sénégal am nañu ak xarañte gu nekk ci ñoom ma dem ci ki nga xam ne moomu di Amina pote gaynde TFM gi nga xam ne ñëppay wax ci moom moom jamono ji le mooy nit ki ëpp bës fii ci Sénégal lu mu jëf gars yi wax ko am nañu bare bare ñuy wax naan site internet yi dañu koo ŋànk lànk bañ koo ŋànkarti maanaam lépp lu mu jëf ci ñu ñaaw rek dañu koy daal bind fasaasa tasaare ko mu wër àdduna wërngal këpp waaye mosuñoo bind ci moom lenn lu rafet loo xam ne moom Amina Poté mu ngi koy jëf te moo ne de am nañu ne Amina Poté dafay dimbali ay nit ñu bari ci seen lalu hôpital ya ñu nekk ay bare bare ba ci ñi nga xam ne sax ay nit ñu siiw lañu am lan lu mu leen di defal ci suuf loo xam ne kenn du ko yëg ana moo tax site internet yi ci bare bare demuñu gëstu ji loolu la waaye lu mu jëf ñu daal koy wax lu mu sol ñu bu noir ak tubéy bu noir loolee mu sol nag dafa mel ni Chitaine Korse ba ma nga ci biti maanaam simis la boo xam ne dafa dëppook tàngaay bi ñu bari di ko ŋëwte naan yére boobee mu sol jotul jekkul jaaduwul loo a wax mbaa ñu mën koo fësal waaye Amina Poté moom lu mu def ñu daal di koy wax dafa mel ni tama ëpp koy buum dafa mel ni nit ku awlu la koo xam ne saa bu jëfee rek ñu daal di koy wax loole moo li waral ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem ñi nga xam ne dañuy topp Amina Poté di ko xamal naan ko nag moytul bu baax a baax ndax say noon ñu ngi ci sa kanam di jéem a gor say tànk ñu ngi ci sa ginnaaw itam di jéem a xëcc saw ndodd ngir nga daal di nërmeel loole dong lañ ci jublu waaye nag wéyal te nga dox sa dox ndaxte ku gëm boppam dafay boppam kenn mënu koo baare te itamit nag kenn mënu koo tere dox ci yoonam ma dox dem ci faux mariage yi nga xam ne ñu ngi ko fiy déclaré fii ci Sénégal benn bi ñu ci déclaré moom moo di Léna Gueye bi nga xam ne moo nekkoon soxna ci Balla Gaye numéro 2 moom mi di Léna Gueye gis nañ ko mu def benn shooting boo xam ne da caa sol yére mariage maanaam ab robu mariage am la ca def benn shooting posté ko ci page Instagram am ñëpp naan Léna Gueye dafa am mariage Léna Gueye am na beneen borom kër bu bokkul ak Balla Gaye gannaaw ba ñu divorcé bu yàgg Léna amaat na beneen borom kër loolee lépp dara du ci dëgg ab shooting la ca def site internet yu ci bari reprendre ko naan Léna Gueye dafa marié wu loolee gars yi ñu ngi koy ngawti ngawtee jamono ji lee site internet yu bari bu ñuy bind information yi dafa mel ni duñu ko gëstu dafa mel ni duñ ca am lu leen leer waaye dañuy jékki-jékki rek na ca jànjax dugg ca te xamuñu lañ naka naka lañ duggee ma dem ci beneen mariage boo xam ne mariage dëggantaan muy mariage Serigne Modou Kara Serigne Modou Kara dafa daal takk benn ancienne mannequin boo xam ne ñu ngi koy tuddee Fleur Mbaye moom Fleur Mbaye ci boppam moo posté yi photo di xam le ne moom Serigne Modou Kara moom moo ko daal jël muy ab borom këram la ci liggéeyam ci jamono ji nga xam ne ci la ca daan toll Serigne Modou Kara jël na ko ab soxna gannaaw ba mu tàqalikoo soxnaam ci nga xam ne moom la fi tàqalikoon te kooku li amaat beneen kër bu yees boo xam ne moom la am muy xale bu ndaw léegi nag mu nga ca yeneeni loxo ki nekk ci ay loxo jamono ji la moo di Ahmed Aidara maire bu waaye Ahmed Aidara ma nga ca tribunal bu Pikine ak Géejawaay ñu ko fay àtte waaye la nga xam ne moom la ñu jàpp ne moom lañ koy tëj te parquet bi demande ko li nga xam ne moom moo di juge bi mois lañ koy tëj ci prison maanaam juróom benn weeri kaso yoo xam ne benn ba lay tëdd juróom yu doon ba noppi itam amande ko lu toll ci fukki junni yoo xam ne ci koppar moom lay joxe moom Ahmed Aidara la ñu koy toppee moom moo dina dafa indi li ñuy tuddee trouble à l'ordre public ak créer li ñuy tuddee attroupement maanaam woo ay ndaw ci indi leen ci xeex goo xam ne xeex bu amul njariñ la ak participer ci manifestation goo xam ne kenn digle kenn dugaliw leen ko maanaam manifestation boo xam ne joxuñu leen ci ndigal ñuy dajaloo ci mbedd yi di jéem a tànqal di leen sonal loolee lañ ji lee tax na Ahmed Aidara soo wattuwul dana tëdd benn weeru kaso boo xam koy toogee waaye du ko def ci wetu askanam du ko def ci wetu njaboota waaye ci biir kaso ba la koy defee loolee mooy li nga xam ne moom la procureur ba bëgg foofule ca tribunal bu Guédiawaye waaye monsieur le juge dafa mel ni jëlagul aw cëggal guyam am na ñu ne ma déedéet jël na cëggal guy ga loolee lay jëfandikoo maanaam juróom benn weeri kaso yi ak fukki junne amande yi nga xam ne moom la ñuy teg ci ndoddul Ahmed Aïdara bu dee ki nga xam ne moo di Mame Diarra ki nga xam ne moom moo di Déthié Fall ñoom ñaar seenu procès ba dañu koo dàqaat waaye jàppaguñu date ba a sujet ko gis nañ fa Ousmane ba mu duggee ci tribunal ba bay génn nit ñi di ko tàccu ak di ko baraawo mu demoon di leen seeti noonee la ko defewaat ci tribunal bu waaye ngir ñëw dooleel ci Ahmed Aidara na mu ko defee ci Déthié Fall ak Mame Diarra Fam Abdoulaye Wade moom dafa yebal ay délégation ngir ñu dem seeti ji waa kër maam Diarra Fam seeti ji waa kër Déthié Fall seeti ji waa kër Ahmed Aidara ngir xamal leen ni leen moom Pape du Soppi bi mu ngi ànd ak ñoom mu ngi ànd ak ñoom ci xeex bi muy gudde ak muy bëccëg muy taw muy naaj mu ngi taxaw ci ñoom te itamit nag dinañu xeex ba démocratie bu Sénégal ñu mën koo ñoŋal ca na mu nekkee maanaam Sénégal référence ci Afrique nekkoon référence ci àdduna ndax lu mu yëngu-yëngu tamit terewul démocratie bi dañ ko daan bàyyi ci na mu nekkee woon kenn ku ci nekk loo bëgg a wax wax ko loo bëgg a kaas-kaas ko lu la naqari nga mën caa taxaw ci na mu gën a gaawee nit ñi mën la cee dégg loolee la ñu xamoon ci Sénégal waaye Sénégal bu léegi dafa mel ni démocratie am dem na sax ba tubaab bi di ko waxal seen bopp dañ koo piétiner maanaam amatu fi njariñ dañu ko ray ba mu dee ndaxte kenn amatul sañ-sañu wax kenn amatul sañ-sañu dox kenn amatul sañ-sañu wax li la naqare moo tax askanu Sénégal ñu bari jàpp ne ñu ngi ci sursi lépp lu waay wax dañu la ràpp kaso bi Sénégal léegi ab lido la boo xam ne boo génnee ñu jàppale baa ñu baare saw yoon taxaw ci sa buntu kër doo fi mën a jaar ndax def naa fi aw barrage noonee la Sénégal yi jàppe Sénégal léegi ñeneen ñi ne déedéet Sénégal dëkku yoon la lépp lu waaye di def boo ko tegul ci yoon yoon dal ci sa kaw noonee rek la ñu ko jàppe ñoom kenn ku ci nekk ab sa xalaat man nag sama xalaat mooy lu réew mi tar tar tar tar tar ak lu mu metti metti metti metti metti ñaari baata ngi ni yu am solo mooy farlu ak foogu li ci des nag suñu boroom a ko yor